garage leen jàmm ci xibaar yi nga xam ne nag moom la xëyandoo dox ñaxtu bi nga xam ne moom la tuddee aar la bokk moom lañu tuddee aar la bokk doxum ñaxtu bi nga xam ne daal bëggoon nañ ko amal démb ci àjjuma gi yéen nga xam ne nag ñoo bokk ci kuréel googee am na ci ñoo xam ne dem daal daanaka ñoo baare woon mbir yi nga xam ne nag ñoo nekkee ci Dakar kaar yéen kaay bi duñu xamal ne waaye mbir mujjee na leen saf-saf ndax ñi nga xam daal doxu ñaxtu boobee nga xam ne moom la bëggoon amal dañu xamal ne bi dañu xamal tey nag bu juróom waxtu jotee ci ngoon dogal boobee dañu ko wëyal ci wàllu essence bi yokk nañ ci lu toll gasoil ci 80 francs bu fekkee nag lu jëm ci wàllu gasoil bi ci 60 francs quotidien di ñu ne nag moo ko di ko Sénégal jamono ji li nga xam ne nag yokk nañ ko ci essence bi jafe-jafe ñeent ci ay consulat jamono ji nag fas yéene nañu koo tëj yéen i kaay xamal ne kay président Macky nag génnoon na l'observateur moom nag daal ñëw ci ki nga xam ne nag moo di Ousmane Sonko moom Sonko Sonko bi Ousmane Sonko koy jamono ji bëri na ay wax waxeet yoo xam ne amal na ko ndax am fi sulee lépp loo xam ne nag jëm na ci 94 milliards yi nga xam ne mag Mamour Diallo yéen kaay bi dañu ñu xamal ne xibaar bi nga xam ne le témoin yëkkati na ko jëmale ko ci fédération bi nga xam ne nag moo nekk ci réewum Sénégal ci wàllu football yéenekaay bi dañu xamal ne te doon xamal ne nag jamono ji lu toll ci juróom-ñett fukki nit yoo xam ne a yóbbu dañu xamal ne moom Matar Ba kay daanaka ba muy dem mbooloo la yóbbu fi nga xam ne nag moo di Égypte